ñu ngi ak euh, madame Ndiaye Ndeye Gnilane mhm. nga euh, wax yow yaay kan. man maay madame Ndiaye Ndeye Gnilane Faye di coordonner projet bi nga xam ne APROFES def si ànd ak euh, organisation bi ñu wax AWDF pour fexe ba ñu wàññi métital yi nga xam ne mu ngi dal jigéen ñi si biir Sénégal ñu jàpp ne métital yooyu bu fekkee ne yombalal nañ leen certificat médical boobu ñu am ko te duñu fay dina tax métital yooyu wàññeeku Sénégal ndax lan. su bu fekkee ne da nga nekk jigéen ñu lay toroxal di la dóor di la gaañ te yow mënoo am fenn foo ko jooyee ndax yow boo laajee euh, boo waree dem si yoon dañ lay laaj nga indi firnde te firnde boobu am njëg te yow amoo la nga xam ne mën nga ko génne si sa si sa poche pour joxe ko ñu defal la loolu dina métti li ngay mën kay mooy dellu rek fa nga xam ne foofu lañu doon doon bundaxataale ñu continuer di la fa dóor di la fa toroxal ba leneen xew si te souvent loolu la ñuy gis Euh, ñi nga xam ne dañ leen di dégg toujours ñu leen di ñu leen di faat c'est parce que du yoon boobu rek lañ leen dóoroon ñu faatu c'est que dóor nañ leen damm seen loxo dóor nañ leen pattal leen dóor nañ leen euh, gaañ leen finalement dañ leen dañu fay nekk ñu leen di dóor ba ba faat seen bakkan ñu ne nag comme état du Sénégal euh, dafa ne dafay bëgg a taxaw pour xeex bépp métital bu ñuy teg jigéen ñi ba si loolu moo tax mu jël ay loi yu bëri am na si boo xam ne c'était en 1999 bi ñu bi ñu defaraatee càmbaree code pénal bi pour pour gën a taral daan yi euh, waaye taxuloon yëf yi sotti ndax dara wàññeekuloon euh, ñu gis xale yu ndaw yi ñu leen di sàkku di leen di faat ñu indi beneen loi bu bees euh, si at mi nga xam ne moom la ñu dugg si fin décembre lañ ko lañ ko voté woon 2019 promulgué ko en en janvier 2020 président de la république oo mbootaayu jigéen yëpp palais de la république. ñu fekkee euh, muy signé décret de promulgation bi ñu ne nag yooyu dafa nekk ay jumtukaay ya nga xam ne dina xeex euh, métital waaye jumtukaay yooyu euh, jigéen ñi nga xam ne dañ leen di métital di métital seen doom duñ ci mën a jote tant que yombalaluñ leen certificat médical ndax certificat médical bi dafa ñag affaire yooyu ba nga xam ne mënuñ si jot ñu ne nag bu fekkee ne nag loolu dafa continuer day mel ni rek comme defuñu dara alors que bu fekkee ne yombalal nañ leen certificat bi dina tax dina tax ñuy yomb jot si yoon boobu ba nga xam ne képp ka nga xam ne yëkkati nga sa loxo jëmale seen ka seen kaw di nga xalaat ne ah kii de ah fi mu nekk nii xam naa ne moom amul doole waaye état baa ngi te état bi mu ngi koy yiir bu ko defee dina tax téye loxoom dootul dóorati te keneentam dootu ko dóorati. loolu moo tax ñu ne nañ yëkkati plaidoyer bi pour jàppale suñu bopp jàppale suñuy doom jàppale suñu ay ay mag ak suñu rakk pour que vraiment métital bi dañ Sénégal. ndax euh, métital bi fi nekk nii dafa jéggi dayoo torop torop torop. femmes yooyu nga xam ni souvent dañuy dañ leen di métital wala sax ba faat bakkan di ci am ndax yéen euh, euh, taxaw bi ngeen taxaw ngir jàppale leen ci loolu jot jot ngeen a jokkoog ñi nga xam ni ñoo yore wàllu àtte yoon ak ñi nga xam ni tamit ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci loolu pour seen liggéey gën a yomb. waaw organisation yi nga xam ne ñoom ñooy taxawu jigéen ñi si wàllu si wàllu yooyu def nañ ay tàggat yu bëri. ak ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu yoon euh, pour ñu gën di euh, weccu ak ñoom xalaat ci euh, instrument juridique yi nga xam ne maanaam texte yi nga xam ne dañ ko fi teg pour fexe ba ñu yéwénal ak ak yelleefu jigéen ñi di weccoog ñoom si li nga xam ne mooy la ay textes yi def ak li nga xam ne moo xew bi Sénégal ci loi yi ak yooyu pour que ñoom ñu fexe ba seen seen ay àtte méngoo ak li nga xam ne moom la moom la moom la yoon wax maanaam gën a méngoo euh, dinañ aussi def ay ay waxtaan euh, dinañ def ay jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk euh, si police bi ak ci gendarmerie bi pour que vraiment ñi nga xam ne noonu la ñuy gàttandoo ñi am mitit yooyu mu am lu lu ci lu ci lu ci lu ci xaw a soppeeku mu gën a baax dinañu def ay liggéey yu bari ci yu demee noonu mais lii dafa nekk rek benn benn jéego boo nga xam ne organisation yi dañ ko yokk ci xeex mititel yi te te jéego boobu ki nga xam ne moom lañ ko jëmale mooy ki nga xam ne moo moo mën a xaatim moo mën a xaatim benn benn benn arrêté wala moo mën a xaatim benn loi ne mankat bës bés ni ki tey wax euh, euh, jàpp naa ne wala maa ngi digle nekk Sénégal bépp jigéen bu fi amati métit boo demee si kër docteur nañ la defalal certificat médical bi te doo fay dara. loolu loolu dañu yaakaar ne buñ ko buñ ko amee dina gën a yombal waxuñu ne nag dinañ mën a daan. Euh, ñi nga xam ne ñooy def métital yooyu yëpp waaye dina yombalal ñi nga xam ne dañoo bëgg a dem si yoon ñu mën a dem si yoon te te te te du te du leen jafe ndax tamit euh, nañ fàttaliku ne dem si yoon euh, yombul trop pour jigéen ñi ndax aada bi ak cosaan bi nga xam ne moo ñu tënk jigéen ñi ñuy si bëri dañuy am sax am na ñoo xam ne dañuy am sax lu ñu yóbbu waaye du ñu mën a dem ndaxte niñ leen di gisee la ak ni ñuy gisee jigéen buy dem si yoon donc loolu moom beneen beneen xeex la loolu beneen waxtaan la boo xam ne dinañ ko mën a def ak euh, opinion publique bi def ko ak euh, jigéen ñi ba nga xam ne dinañ dinañ leen gën a kàttan pour que ñu mën a assumer seen leadership mën a euh, xeex pour que seen àq ak seen yelleef ñi ñu mën ko respecter. Mm-hmm. loolu nga xam ne moo jëm ci maanaam métital yooyu ñan ñoo ci gën a ràññeeku ci façon métital yi ak mën nañoo xam nombre bi maanaam lim bi nga xam ni jot nañ jot ngeen ko tënk ci xayma. comme ni ma ko waxee rek léegi si nasaraan euh, xam lim bi dina dina jafe parce que organisation bu nekk da ngay nekk fii di di liggéey di am sa ay données keneen nekk si wetam di liggéey ab données te amaguñu benn saytu benn gëstu boo nga xam ne mën na tax ñu ne Sénégal de atum 1919 2019 wala atum 2020 euh, nangami jigéen ñi la ñu dóor ba gaañ leen wala nangami jigéen ñi la ñu sàkku wala nangamu jigéen ñi de ñoo jote woon ak seen boroom kër ba lii ak lii xew si donc loolu moom jafe-jafe la pour organisation waaye si suñuy waxtaan ba démb rek waxtaane nañ si fexe ba seet naka la ñuy taxawale euh, benn kuréel ba nga xam ne di ñëpp ña nga xam ne ñu ngi liggéey si wàllu métier dinañ fa daje di weccoo seen xalaat tamit ba favoriser ñu teg ay ay ay ay firnde ya nga xam ne bu ñu taxawee ne lii moo am rek kenn dootu si amati looy wax Euh, beneen bi ma ciy teg mooy li ñu seetlu ne moom moo gën a bëri mooy métital yi nga xam ne mu ngi xew si biir kër gi si diggante way dencante yi waaye si diggante aussi ñi nga xam ne dañoo bokk dañoo bokk borom kër euh, te loolu su ma ko waxee mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy métitalante seen biir euh, am na ay métital yuy xew si mbedd mi gaa bëri na mais boo ko boo ko méngalee ak yi xew si biir kër gi yi xew si biir kër gi moo ëpp métital yi tamit dañu dem ba si biir école bi dañu dem ba si bërëb yi nga xam ne foofu la ñuy denc ñi nga xam ne ñoom ñoo wàccoo ak yoon donc euh, métital yi jigéen ñi di di dund mu ngi mën naa wax ne mu ngi fu ne mu ngi si kër gi mu ngi ci mbedd mi mu ngi fu ne. jërëjëf kon ñu ngi lay sant la gërëm.